président politique bi nag fii ci réewum Sénégal def nañ ko lambu golo lambu golo ku jug daanu vox populi naan man déet ña ngay galgalante kay ci digg langu politique gi maître Moussa Diop di joxor maajoor joxor leel demale baaraamam ci bëtuk Aly Ngouille Ndiaye Mimran ak président Macky Sall tribune yéene kaay naan man déet taajum teesante kay moo am diggante maître Moussa Diop Aly Ngouille Ndiaye président Macky Sall ak Mimran vox populi naan en tout cas moom maître Moussa Diop day lam leen jiiñ na rëy naan kon maa la koy yeggali moom maître Moussa Diop nee na président Macky Sall Aly nguy Ndiaye ak Mimran dañoo taqee ci li ñu dippee ay jaman québécois scandale la goo xam ne gu rëy la moom maître Moussa Diop ne en tout cas Sénégal gi lañu wax créé ay jamaa jëlub contrat daal di koy xaatim contrat goo xam ne ay milliards yi milliards la sunuy koppar daal di ne ko France daal di jël koppar ga nag seddoo ci ndoddu sénégalais yi turbine yéen a kaay naan kon Bougane Gueye Dany waxoon na ko woon na jamaa feeñ na ci réewum Sénégal 2021 la ko njiital gëm sa bopp waxoon xam-xam gi nga xam ne am na ko ci réalité bu gouvernance bu ressource yooyee moo tax mu xam le woon ko di sàkku ci président Macky Sall mu daal di activé daar daar brigade bu affaire financière ak OFNAC l'évidence naan maan ma kon sàkku bi ñu daal di leeral kàddu maître Moussa Diop yii waaye tam moom it ay kàddoom jëm ci réunion boo xam ne amal nañ ko xaaja guddi ca hôtel Georges V ba nekk ca Paris foofee nag ñu doon xool naka la ñuy patam patamee ab contrat daal di séddoo am amuk sénégalais yi ci wàlluk jamaa laajee mu samp di ndax Sénégal dafa am jamaa su amee jamaa jamaa ak leneen dëgg-dëgg moo am ci suufuk Sénégal yi sénégalais di ci joggi bés bu yàlla sàkk ñu ciy joggi terewul ñi ngi nekk ci coono yoo xam ni maar day taali diggante wasangara karakay département bu Saraya diwaanu Kédougou wala it ca Kéniéba ca commune bu Médina Fulbe région bu Bakel ñaari at yi kàddu yéen fay jibal ci wàllug jamaa dëgg la am du dëgg bugaan naan leen na président Macky Sall génn leeral Diagne njaay na génn leeral waaye Mimran it na génn daal di leeral moom Aly Ngouille Ndiaye naan leen lu ñuy leeral daanaka amu fi maître naan leen dafa xaatim ab bataaxal boo xam ne moom Aly Ngouille Ndiaye moo ko jébbaloon Mimran xamal ko ne mën nañoo exploité ci tulug société bii di Sornoway Jemon Corporation te naan ko benn autorisation de d'exploitation dina ci topp Aly Ngouille Ndiaye naan kon bataaxal bii day bu amee ci bopp danaka maître Moussa Diop la nekk lettre yooye amut mësta existe moom cellule bu communication bu Aly 2024 daal di xamle ni mani la kàddu yi amut te taxaw naan Sénégal am na jamaa ànd naag légèreté ci maître musa Diop moo xam ne nee na ëllëg dafa bëgg jiite Sénégal Ousmane Cissé ancien directeur des mines ci Vox Populi ne coow li moom moo di jamaa ci boppam mënee su ko exploité ci zone nord bi amul ay roche yoo xam ne dafa ànd ku jamaa société bi nga xam ne cité nañ ko it registre bu titre des mines bu Sénégal tur wa newu fa laas naan leen en tout cas maître Moussa Diop taxal na gouvernement gu Sénégal bi rawatina nag Aly Ngouille Ndiaye turbine yéen kaay naan kon dañoo yàgg taxawal geneenu marché ngi nii bu juróom-ñaar fukk ak benn milliard boo xam ne diggante ACD la ak ministère de la santé directrice générale bu taxaar project daal di weddi ACD fat ki ne si sa njiital taxaar project ne marché bi ni ñu ko taxawalee wuute nag ñu taxawalee yenn ci ci marché yu soxal yenn hôpitaux yu ci mel ni la Dantec ndax marché bi ci diiru benn fan lañ ko taxawale maanaam waxtaan ba déggoo la ñu amalee marché bi vérification yi nga xam ne daal dina cay war amu ca le quinze lañ ko lancé le 16 ñu daal di cay tontu marché fukki million day laal li ci gën a tuut benn ayu bés ngir ñu daal di koy saytu marché juróom-ñaar fukk ak benn ci milliard ci benn fan ñu lancé ko ci benn fan ñu daal di koy tontu benn lettre ba leen daal di jël daal di tontu ay junniy junniy lettre waxtu mi ngi ci tiroiru ministère de la santé moom moo di nañu wax lan moo lal gile marché moom Farba Ngom jëwrin woon ci biir yéenekaay bi ba tey xam le ni coow li moom moo di marché bi la mu làmbool dafa war a leer te daar daar nag dees na ko war a leeral ci réewum Sénégal ndax nag mun ñoo taxaw ne gouvernance sobre et vertueuse tey jii ju taxaw di ñu gëmloo ni am nag juróom-ñaar fukk ak benn milliard yoo xam ne xaatim nañ ko daar daar jébbal ko benn nit dib société boo xam ne ab soxnaa ko jiite ci marché boo xam ne ñi ngi ko def ci ndoddug sénégalais yi lañ fay defar sénégalais yi daal di koy moom sénégalais yi ci boppam Farba Ngom ne ñoo soxla ay leeral ci ci gile marché laas yéen kaay naan man en tout cas bennoo bokk yaakaar moom ña nga tampaloo faya laaxu doon benn vox populi naan ko déet xanaa boobu da nga yëgul malaise bi nga xam ne am na ci biir APR Maxime Montero ma nga xam ni bokkoon na ci ñee sosoon APR daal di ne dudd président Macky Sall daal di dem fekki coalition jonn 2024 situation économique Maxime ne waral na ko ak social waaye tam façon bi ñuy góor ne réewum Sénégal démocratie fi mu toll ci réew mi wàllu kaaraange fi mu toll ci réew mi Maxime ne lii ya tax ma daal di bàyyi président Macky wàllu jubali ci bun Abdallah Jonn coow li coow li mooy dañ ko accentuer ci Sénégal kese liggéeyal Sénégal dong lii tax nag Maxime xamle ni mook Benno Bokk Yaakaar jeex na l'enquête quotidien naan man en tout cas délégation bu rëy bu Benno Bokk Yaakaar moo daal di dem ca Paris moom Amadou Ba daal di fay tëggu meeting dafa demoon ci njiital gouvernement ca Paris mujjee nag nekk candidat boo xam ne dafa dajeeg ay militant Aminata Touré daal di ne man France naka la ñu mënee lii laa xamul la ba jógii ñu indi ci wàllu diplomatie ci réewum Sénégal laa lan la ñu dalal wala premier ministre Ibrahima Sissoko candidat président soxo Sissoko 2024 turbine yéene kaay naan leen ak lu mën a xew ci Paris ak lu mën a xewit ci Sénégal nan jàpp ne élection présidentielle yi daal soobu nañ ci ñoom it soobu nañ ci ba def seenub caution di ñaan président Macky Sall leen rek mooy candidat boo xam ne samp na ndëndëm ñu bàyyi ko mu bokk ci yile élection ndax loolee dina wane degré démocratie fees tollu ci réewum Sénégal njiital mon pays mon avenir di ñaan conseil constitutionnel ñu daal di ànduk neutralité daal di nag dugg ci taarixu réewum Sénégal ba faw Ibrahima naan li nekk sama base si waawoon pël jaarale ko Kër Masaar daanaka moo nekk ci réewum Sénégal ci wàllu infrastructure yoo xam ne ñàkk na plateau médical boo xam ne daanaka amut ñàkkum xëy yoo xam ne mi ngi ci ndaw ñi waaye tam ñàkkum dal goo xam ne mi ngi ci réew mi lii nag la ñu bëgg joyante ci réewum Sénégal ngir géneenuk Sénégal daal di juddu Coly Sall président bu mouvement renaissance patriotique pour le développement durable ne lu ñu mën a waxit Sénégal te joyantiwu ñu ndaw ñi waxuñu lenn ci forum ban doon amal xëy ci réew mi mi koline la jiitu moom moo di ndaw yi daal di am fu ñu tàggatoo maanaam jàng ba seen xam-xam mën a màcc ci benn point ci réew mi fexe jàngal xale yi objectif la waaye itam fexe ba réew mi am ak wér gu yaram goo xam ne mënees naa concentré wu objectif la jaarale ko ci mbay mi ci xëyu ndaw ñi fexe ba immigration clandestine daal di dakk ci réew mi lii it ay sabab la monseigneur Benjamin Ndiaye ci libération yéen kaay ne coow li ci réewum Sénégal fi mu ne moom moo di mbangaan gi nga xam ne xale yaa ngi ciy jaar ci géej gi di faatu ci anam ngoo xam ne mitti na ñaaw na lii dees na ko xeex ci réewum Sénégal l'observateur naan fi mu ne day politiciens yi nee ngi wax ku nee ngi yëkkati say xool la nga bëgg ak la nga bañ ku ne ngay tamanteeg sa morom waaye Idrissa Seck ngi def cell rek lan moo waral tekku Idrissa Seck gii libération yéene kaay naan kon waxtu woow jàppal ni téeméer fukk ak ñeenti maire yu Sénégal daal dina ñuy bàyyi association des maires du Sénégal l'observateur naan kon delsil ci man ma xamal la ni borom boutique bi soxna si jàmbur la doon jëfandikoo te bu koy jëfandikoo da koy daal di filmer dañoo xëy rek vidéo yi waa lii saga mu dendeel daal di koy partageante xale yi seen biir vidéo ba nag daal di siiw la ñuy def téléphone xale yi ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm rapido nañ ko fi def nañ si bay nañ suñu waar loo nga xam ne xëy na central syndical yi ñoo ko waroon def defuñu ko donc ñu fees place boobu ñaari yoon muy 2011 2017 yëpp ñoo gagné te toogaluñu fi population yi toogaluñu fi travailleurs yi ñun place yooyu li ñu bëgg a fees GTSB jàppale ne kon waa confédération nationale des travailleurs du Sénégal ñoom it ña nga ca wàccaay la CNTS ñoom nee nañu en tout cas seen bëgg-bëgg moo di gën a taxaw jàmbatu liggéeykat yi su ko defee ñu càkk saafara secrétaire général adjoint bi mooy ni xamle Lamine Fall lay wuyoo. ne daañu delloo buum ca booy booy ba parce que CNTS en tout cas moo fi jiite ci centrale yi depuis sa création ba léegi itam ñoo fi nekk. te defuñu fi lu bon nag waxuñu fi lu bon suñu leader secteur général moo di Guiro def naa ni ñëpp xam nañ ko muy nit ku integre nit ku posé nit ku pondéré mais nit kuy jàkkaarloo aussi pour problème liggéeykat yi. je pense que collectivités yi mën nañ ko confirmer seen dossier bi certainement réglé gul mais am na ay jéego yoo xam ne bii def nañ ko ci gannaaw yàlla moom la. jàpp nañ nal défi bi mooy fexe ba ñëpp voté. le jour waaw sensibiliser nañ ñëpp dugg nañ fépp. dugg nañ fépp wax nañ leen aussi euh, ni ñu war a wotee li ñu war a indi comme pièce pièce yi mooy donc euh, identification bi c'est la pièce d'identité c'est le passeport en cours de validité mais aussi le permis de conduire vraiment ñi ngi sant yàlla di ñaan mu def jàmm ñu dem ci le 12 voter dans la tranquillité parce que aussi ñooy bokkaat toogaay yi ngir nag yombal euh, élection yi wala vote bi seeni i membre waa CNTS FC nee nañu di leen yombal dem beex dëkk bi euh, maanaam assurer seen euh, mobilité démb la ñu ko xam ne si genox taskatu xibaar yi moom Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS FC ay kàddoom ñu teewlu ko Tidiane Diallo Madani Marega te ci engagement boobu la sukkandiku pour que suñ camarades yi ñu dénkoon comité électoraux yépp ñu fexe jàppale leen ci ni ñu mën a convoyer seen i électeurs waaye nag jàppale rek lay doon dinañ dañ ko fexe ba comité yépp 46 départements yépp ñu am lu ñu leen jàppale ba tey bi ñu desandee ci élection de représentativité yu centrale syndicale yi jàppale ne kon waa syndicat unique des travailleurs des abattoirs des cuirs et des euh, charcuteries du Sénégal ne ñoom ñoom ci boppam euh, xam nañu ku ñuy dikk renfort mu di waa UDTS euh, wala sax coalition ba nga xam ne UDTS moo ko porté ñoom nee ñu Union démocratique des travailleurs du Sénégal ak ah, UTS Union des travailleurs du Sénégal ñoo fës kee ne joxante loxo secrétaire général ba mu ngay sàkku ñu voté ngir ak coppite daal di am ci li nga xam ne mooy génnu sunu euh, kuréelu syndicat yi rawatina central ba nga xam ne moo leen di jaboote Mamadou Wade ay kàddoom ak Younousa Baldé kon dialogue social am solo la kon nañu ñaan entreprise yëpp ñu jël ko def ko seen seen seen seen seen seen yitte def ko seen pas-pas def ko seen ille ndax dialogue dialogue social dafa am solo ndax day tax ba nit ñi déggoo kon nañ fexe ba liggéey barabu liggéeykat yëpp nekk suuf su nangu boo xam ne bu ñu fa jiwee loola day day meñ meññ. kon dañuy ñaan nag wax dëgg yàlla yéen liggéeykat yi ngeen am fulla seen bopp am fayda seen bopp li fi nekk yéen a ko mën a soppil sa bopp mbéjum bopp mbéjum gémmañ borom moo ko mën a fajal boppam am leen fulla ngeen jël ñi nga xam ni ñoo leen di représenté bu ëllëgee ci travailleurs yi xool depuis fukki at ak ñaar a ngi nii déggu leen fi benn centrale bu yëngatu wax ci wax ci yokkute euh, dund gi te loolu yëpp waxuñu si waaye dañoo toog ba sànn ba élection jot. du ni dañoo ya yaayee dañuy ñëw pour woowaat leen boo leen ñëwee loo leen di wax. Euh, euh, Simon faw ñu fàttali liggéeykat yi euh, ñi nga xam ne ñooy adhéré ci syndicat yi lan mooy njariñu élection de représentativité benn pour nat doole centrale yi parce que syndicat yi déjà ñoom mu weer yële passé defoon nañu seen élection de représentativité. Mm-hmm. ci la ñu gis beneen recomposition bu G7. bi nga xam ne normalement bu nguur gi soxlaa wax ak syndicat yi ñooñu lay waxal. parce que mhm. dafa jàpp ne ñooñu ëpp mbooloo. et ñooñu bu ñu fa teewalee sur le principe c'est que ñëpp la fay teewal mais gis nañu par la suite. ci élection de représentativité processus bi mu commencé ba léegi ngay dégg ay G G g ñi nga xam ne peut-être bokkuñu ca ñañu ne yéen a ëpp mbooloo mais ñoom ñu gis ne ñee nañ demal seen bopp bu ñu amee lu ñu wax ak gouvernement am nañ ko wax mais lépp lañ ko wax également engagé wu leen donc ñoom également ñu ber seen i daara wut seen mbooloo bopp mais toujours est-il que saa yu situation amee nguur gi ku mu mën a waxal également day wax ak yow parce que loolooy jàmm réew mi centrale syndicale yi nag bi yoon la ñuy natt centrale yi bëri nañu hmm. bii ci élection yi xayma nañ ci 12 12 yoo xam ne boo xoolee l'électorat maanaam li nekk ci fichier bi war na mën a nekk ay ay ay 315 000 électeur ay ouvrier wala boog ay travailleurs yoo xam ne syndiqué wu nañu ñoom ku ci nekk sa syndicat ak centrale ba nga xam ne fa nga affilié wala centrale boo xam ne moom nga bëgg soutenir donc enjeu bi bëri na parce que au delà de peut-être euh, euh, liñ la xaymal ne yow yaa ëpp mbooloo yow yaa ëpp syndicat yi ànd ak yow mais force la boo xam ne ëllëg mën nga wax valablement avec l'État tu deviens un interlocuteur devant l'État au même titre que syndicat yi boo leen jëlee syndicat par syndicat individuellement donc c'est à peu la même chose am na nag leneen lu ci ginnaaw loo xam ne également nguur gi euh, daf koy subventionner également centrales yi wala boog syndicats yi bu boobaa également yow da nga cay bokk da nga mhm. cay bokk et di nga am baat di nga gën a am baat ci biir réew mi rawatina bu fekkente ne taxaw défendre intérêt travailleurs yi parce que ñoom yàgg nañ ko wax mais gis nga seen campagne bi ni mu demee déjà mhm. ku ci nekk yaa ngi ne il faut un renouveau ku ci nekk yaa ngi ne syndicats yi wala boog centrale yi défendre ñu liggéeykat yi donc ñu ngi ci situation de campagne boo xam ne te heureusement am na ku ko wax bu élection yi passé après ñoom ñooy bokkaat rek parce que liggéey Sénégal moom képp kuy liggéey je pense que am nga ay jàmbat am nga ay soxla te keneen war laa mën a taxaw ku dul syndicat yi donc finalement ñoom ñëppay mën a ànd ñoom ñëppay ànd àndandoo benn et pour justement le bien des travailleurs et travailleurs yi dañoo soxla justement ci jamono ji ñu toll mais ku leen di dépendre jàppale leen parce que dund gi métti na liggéeykat yi tamit sonn nañu condition mhm. de travail yi également dafay gën a dégradé wu donc soxla nañu également syndicat bu koy fàttali le patronat di ko fàttali également état bi di ko fàttali les décideurs publics askan way yeewoo sa nginki département bu Linguère muñ ba seen muñukaay yegg si daj dëpp gi tax ñoom démb ci dibet yi ñu wàcc euh, ci mbedd ma sàkk kon nag seen case de santé bu Goulompoo bu boobee wala bu gulom ñu def ko poste de santé en tout cas loolee lañu bëgg de nee nañu it bëgg nañu ñu bil leen vallée fossile yi ngir nag ñu mën faa euh, sanc wax fa dëgg neex yàlla it wala bëgg nañu it forage bu euh, jéeri biraan ak bu njaarno foofe nga xam ne daanaka juróom ci ay village ci euh, juróom-ñeent fukk yeex ñaari daanaka ñoo am courant ñu teewlu sa ay kàddu yu bawoo ci Elimane Sall li ñuy njëkk a ñaan si ngeen mooy ñu tijji vallée fossile bi vallée fossile bi nag bu ngeen koy wax moom moo jógee euh, mbuula jaar mbëlëxe mboy naan war a ñëw bu fii war a indi am ndox boo xoolee ngeen ki ni toll amul fenn foo xam dafa gis tali bu ñuul te waroon nañ am benn tali boo xam ni mooy jógee jaara jolof jàpp ba nguy jéeri amul benn benn poste de bu fi nekk te dëkk bii ñu taxaw muy Gouloumbé Mbéthio seen case de santé avance na tellement ko dañu ko war a en poste de santé bu ma jógee si loolu maa ngi wax lu ñuy wax électrification rural dans maa ngi interpellé le ministre développement communautaire benn dëkk moo si am courant tey muy Ndodj forage au niveau du département de Linguère ngeen ki bénéficié wu si budul ñaari forage muy forage Roto ak forage Gouloum Tëgg te Gouloum Tëgg boo fa demee benn robinet central lañu am mbedd au nga xëy liggéey da ngay xëy dem si robinet bi di rang en tout cas loolee la ñu ne meekulaat ñu koy commenté sa département bu Tivaouane Kayoor foofee nga xam ne jigéen a pekes nee nañu ñoom it wàllum ndox mi lu leen yitteel la euh, forage ba nu ko yoree des na yëngal looloo sabab ñu ne société Aquatech ci boppam la ñu bëgg mu abal leen ndax facture euh, facture courant bu toll ci ñetti millions la leen fa bàyyil te loolee euh, moo sabab nag ñu ne doy na sëkk nag seen digganteex ñoom ñu ànd Pierre Claver Pouy Mbaytal Xumma Sugeer Jukki Hagan Tibaar Jokko di ay dëkk ya nekk ca Pekes askan wa yeewoo ca gox yooyu lee bëggatuñoo gis Aquatec ci seen dëkk yi ndaxte daal yorin gu bon gu mu yore seen forage gi. waa toog bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg na dem na wéy Aquatec dégage Aquatec dégage jiitu loolu daana toog ñetti fan ba ñeenti fan duna am ndox duna am naan Aquatec ñëw indi na ay factures yu cher cinquante mille. cent mille mënu ko fay duñ ko fay pari wuñu ci bor ko fay suñu bakkan la ci teg nan deeba jeex tak ba wute ko. ñu sukkandikoo ci askan yooyu lee Aquatech daal daanaka ay jafe-jafe rek la fay indi. am ni naanul ci ndox mi sangu ci mën nu koo yoral ndax xamul li ñuy jariñ tey xamul li ñuy jariñ ëllëg suñu forage bi muy neex ñoo ko yoral suñu bopp muy naqari ñoo ko yoral suñu bopp forage bi mënu leen cee jot tey ak waa teg ñabale xam na ma xam naa ko wax naa ko muy dégg bu dee dana dégg wala muy gis na xam ni mënta jot ci forage bi tey mënu cee jot suba mënu cee jot ginnaaw suba Serigne Mbaye Thiam il faut être un arbitre njaax ay caaxaan la jël am na daan nañ ko janvier ba décembre gañewul benn forage te perte na fi ay forage yu bëree bëri kon atteel wax ko ni ko mu arrière ci li mu nekk. askan yooyee bëgg daal njiitu réew mi dugal loxoom ci mbir mi laata làmbaay gën a ñaaw. mu nga ko euh, Simon euh, niñ ko demee ko si dëkki kaw gi bu dul ndox di courant forage ba Aquatec saa su ne dañ leen di euh, joxoñ baaraam moonte de nguur gi teg na ay programme yi nga xam ne waroon naa yombal lu ni mel. waroon naa gën a yombal mbir mi parce que c'est vrai que coowal ak Aquatec ak yeneen yeneen société yi nga xam ne ñoom ñoo jël gestion hydraulique rurale bi coow li bëri na coow li bëri na depuis des années et parce que nit ñi comprendre ñu woon. lu tax état bi bëgg nangu seeni forage yi nga xam ne moo nekk seeni biir dëkk ñoom ñu ko doon gérer seen bopp ak ay comité de gestion état bi ne léegi nekkatul yéen yéen koy gérer mais ay sociétés yoo xam ne ñoom laay signanteel contrat ñooy ñëw di leen gérer seeni euh, forage seeni ndox ak lépp la ca war c'est vrai que jamono jooju gisoon nañu problème yu bare bare bare bare ndax dëkk yu bëri boo fa demoon forage yi dañoo taxawoon soit coowal xaalis wala xaalis ba am na nu mu demee mënul réparer forage bu panne Euh, mbirum courant nekk na problème ba peut-être ñu bëri amuñu ndox wala bu ñu ko amee ay toq lay doon wala ay quelques moment état bi nekk ne nañu wut solution mais solution bi finalement on se rend que solution bi du solution bu gën xëy na yéene bi baaxoon na mais du solution bu gën parce que nit koo xam ne quand même da nga koy indil ne ko forage bi maa ko nangoo ci diw jox la ko nga war ma ko gérer pour nit ñi mën a am ndox mais finalement ay problème kese moom moo fay nekk problème parce que gars yi dañoo ñëw ak système de gestion boo xam ne li ci ëpp askan wi day fay ndox d'accord mais bu demee nag ba bëgg weesu capacité wu waa kay waa kaw gi ci war a mën a yor xaalis pour fayee ndox loolu dafay compliqué bu fekkente ne également fekk nañu forage boo xam ne situation nga fa ñu war ko réparer réparation yi diis na diis goo xam ne buñ ko naree jël ko partout askan wi pour mën ko régler loolu également problème la. donc mhm. gis nga actuellement ni mu mel ñii ñu ngi ne Aquatec bàyyi na leen foofu facture 3 millions ci courant mais ñoom fan lañ koy fayee. facture courant boo xam ne c'est pour alimenter forage bi mu mais attends loolu tamit problème la courant boobu ndax courant Sénélec la wala courant solaire la wala lan la. ba muy war a mën a yegg 3 millions ñu ko fay seetaan léegi nag askan wi nan lay def pour naan ndox est-ce que askan wi day dem jukki ca teen ya delluwaat ca cosaan am déet mais mhm. problème la bu sérieux boo xam ne nguur gi war na ko régler mais coow yi yàgg na ci kaw gi parce que effectivement ci kaw gi problème mu ndox dëggantaan moo fa am yenn mhm. gox yu bëri boo fa demee ma mbay amul ndox wala boog nit ñaa nga roote ca teen ba wala obligé dem ay kilomètres ci ay saret pour mën a am ndox mhm. beneen aspect bi wàllu courant Euh, ñii nga xam ne ñoom ñooy waa euh, ñanati sax encore ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo jiitu waa Pekes. Mhm. mais ñoom nee nañu village 92 villages 92 villages juróom ñoo ci am courant. Linguère Linguère. 92 villages juróom ñoo ci am courant alors que courant waratul mën a nekk luxe Sénégal nee na am na courant ba mu ngi jaay bitim réew mais lu tax courant boobu mënul mate ci biir réew mi fépp képp ku ko soxla war ko mën a am waratul nekk luxe ba ñuy toll ci 2023 ay village di manifester ne courant la ñu bëgg te si yenn saay boo fa demee da ngay seen fil ya nee ñu ngay dem pourtant la leen détourné ci biir dëkk bi rek monté leen benn fil branché leen loolu war na yomboon na euh, di fàttalikoon soxal waa Aquatec jéem nañu jokkoo seen i responsable waaye mujjuta en tout wàllu wér gu yaram la ñuy waxtaanee ak waa réseau africain pour la santé seen bëgg-bëgg moo di euh, fexe ba euh, si euh, njàng mi ñu boole ci ay modules yu nga xam ne nii dafay gën a bàyyi xel bu baax tout tànk tout tànk ak seen ak wér gu yaram am ndaje la ñu sa woote woon dajale sa ay jàngalekat ngir ñaax leen si lu nu mel Babacar Guèye ay kàddoom ñu teewlu ko xalaat Sane Balde El yéen du ñàkk ay kàddoom dinañ ko teewlu si sunu yeneen jotaay yu xibaar ñu waxtaanee kon nag wàllum euh, euh, nees mën a def ba wàllum société bi ak citoyenneté bi ñu gën koo joyanti euh, ngir nak lu mën a suqali réew mi en tout cas loolee ci boppam moo tax a jóg waa mouvement action citoyenne mouvement la bu nga xam ne jot nañu ko lancé ci week bi daraay politique nee doxuñu si sukkandikoo ci njiit la nee nañ nag fexe bala nga xam ne mag ñi dañ ko fee bàyyi ñu gën ko dooleel ngir nag lu mën a suqali réewum Sénégal ci lool la ñuy dox Idriss Diakhaté kàddoom wax na nga ko bàkk yëg ko

mooy Sénégal jëm kanam ci ñu ànd booloo ndaxte ñun ñooy tey ñun itam ñooy ëllëg aweniru Sénégal dañoo war a fexe ba may doole wàllum civisme rawatina ci ndaw ñi dooree ko nag ci kër gi ci quartier yi waaye itam indiwaat éducation civique ci l'école éducation civique à mu ngoog andiwaat éducation civique euh, ci euh, école 8h27 si moom laata ma lay bàyyi nga jóg ah euh, loolu lu am solo de nañu andiwaat éducation civique. oui éducation civique. pour fàttaliwaat xale yi déjà dolli ak yar bi nga xam ne ñu ngi leen di yar ci biir kër yi les bonnes manières les bonnes attitudes mm-hmm. parce que loolu lañu soxla effectivement ci biir réew mi mënuñoo am xeenu ku ci nekk ak sa jikko ku ci nekk ak say manière mais manières yi bu ñu mënul ànd loolooy waral société bu bëri problème mm-hmm. looloo waral société ngay gis yenn yi looloo waral ngay gis yenn taxawaayu ndaw ñi ba ci sax mag ñi donc il faut yenn yi ñu mën ko indiwaat non seulement à l'école mais l'école doit renforcer l'éducation bi nga xam ne xale yi tamit war nañ ko mën a am seeni biir famille parce que ñu bëri dañu ne école mooy yar d'accord mais école avant tout xam-xam lay joxe xam-xam boo xam ne dafa war a sukkandiku ci yar goo xam ne xale bi am na ko déjà ci biir famille bi wala mu ngi koy am ñu koy accompagner famille bi ak école bi famille bi ak école bi ba xale ba mën a màgg mën a demal boppam bu boobaa bu taxawee situation dina xam ne mu koy gérer ci wàllu jikko mais également ci wàllu xam-xam loolu dañ ko cee soxla surtout euh, en ce qui concerne la santé des jeunes et des adolescents et quand on parle d'eux c'est souvent la santé de la reproduction juvénile donc xale yi tamit am na période boo xam ne fa la ñuy toll mais dañuy yëg seen bopp xale yi am na foo xam ne fa la ñuy toll dañuy foog ne ñoom ñooy le centre du monde mais il faut également ñu mën ko ñu mën a énergie boobu ñu mën ko canaliser ba énergie boobu mujjee nekk peut-être luy jëriñ réew mi foofu lañu ñu peut-être gars yi gisee loolu tax ñu am initiative boobu jaajëf Simon Faye rédaction baa ngi xaar ah. waaw ñu yendu jàmm. waaw ñu yendu ak euh, jàmm laata ñu yëkkati wàllum aada ak cosaan ndax exposition vernissage bi nga xam ne association Diofior Lyon Trédignon moo ko organisé association la bu nga xam ne dafay dox si jàppal ma euh, jàpp en tout cas nee nañu seen bëgg-bëgg moo di jaay ay euh, œuvre d'art wala ay tableau yu nga xam ne ni daanaka luñ si jëlee ci ay koppar man see mën a def social.